dama dégg Pape Djibril Fall ak ki nga xam ne mooy docteur Abdourahmane Diouf ñuy plaindre quoi di wax ne daal ñi nga xam ne am nañ ay député yu mat parrainage dañ leen war a bàyyee ñoom parrainage citoyen bi waaye nga am ay député yu mën a yu mat parrainage bu pare di xëcc ak ñoom parrainage citoyen bi neen na loolu daal

constance dafa baax ci moom quoi maanaam nit dangaa war a dëggu li ngay wane dafa war a nekk ci yow sa ay waxu daaw ak sa ay waxu ren suñ ko méngalee dafa war a nekk benn kooku mooy nit ku honnête kooku mooy nit ku loyal

discours mengo et discours discoursu président Ousmane Sonko c'est le discours du changement Madame, alternative dafa war am jeunesse bi retrouvée où tu ci discours Mais ce li est ci ñu retrouvé dans ci discours de gis ci c'est ñi ak le président Ousmane Sonko parce que qui se ressemble s'assemble dañoo gis na li Ousmane Sonko di wax ak lu muy Pape Fall taxaway boobu la am ah ñu jéki jéki Ousmane Sonko Macky Sall ak saay-saay yi mu àndal ubbil ko ben dossier en utilisant Adji Sarr comme arme sexuelle contre le président Ousmane Sonko parce que ñom comme ni kay koy waxee amuñ argument Macky Sall mom amul argument mom politique mom justice rek boko contre justice rek la lay yóbbu dafa wut ay jugeum ay procureur am pour su amé adversaire bu ko sonoon rek mu jaar ak yow foofu loolu mom c'est de la lâcheté légui buñu ubbé dossier aji sar bi pap Djibril Fall continue am position bi mu amone ñu dem bam mu yàgg xam entre temps xam nga li ñuy wax naan shaytané waxul deug waye yàq na ay xel te Ousmane Sonko ñukoy xex ci bor bu nek lañuy sét pour man ko danel li olof di wax naan taal bu tëw a tàkk boor bu nekk nga koy ëppee man ci sama xalaat bu gàtt dafa am ñu ko gëmloo ne ko yow tu es jeunesse bi bëgg nañ la gis nañ seen bopp ci yow ndax sa taxawaay ci réew mi est-ce que boo demee doo détrôner Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko nit ñi weddi nañ ko ndax dossier Adji Sarr bi

ngeen bok même discours tay nga ñew dugg ci géew politique bi ba pare dara nar ko dir mbag di wax naan ay bëgg falu naan tay ma taal dëkk bi loolu jaru ko manam di def yëfu na fekk ba paré mu dégg na fekk yi ak wa APR yi nga xamné dañuy wax naan ñi and ak Ousmane Sonko dañuy attaquer sëriñ si mo mu ne day sëriñ sëriñ lu nak dem di ranger wu ci côté sëriñ si di yore ay kurus di yaru yaru su ko defee ñu naan ay kii dafa yaroo comme étiquette nañ Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko dafa violent moom mu ñëw di prôné moom ne moom moom daal il est pacifique quoi nit la ne ku yaru la loolu yëpp mu ngi ñëw pour détrôner Ousmane Sonko bëgg ko jaaree foofu te Ousmane Sonko ko ëpp jàmm Ousmane Sonko moo ko baax gën kaa yiw ko jaamu yàlla gën ko mokkal alxuraan gën ka ragal yàlla gën ko dëggu duñ benn sax parce que Ousmane Sonko fa mu nekkoon ba léegi ma nga fa ligne ba mu teg woon ba léegi fa la teg léegi mu dem bay sos naan ay tentative d'assassinat mooy bi mu demee ci manifestation bi yuuxoo ko murus rus xamul lan lay wax di sos naan ay dañ maa bëggoon a rey ay am na ay xale yu doon yuuxu naan ay ñun ay jolaa lañ Ousmane Sonko lañu àndal bëgg a tëb rek daf usman Sonko moroom bëgg ko diir mbagg léegi nag popularité bu mu amoon yëpp wàcc kenn respecteetu ko kenn faaleetu ko ñu xam ne kii gëmul dara ñu wetti ko waaye léegi yow Pape Djibril Fall man lu ma lay wax mooy yow da waxoon ne sénégalais yi bëgg nañu la tu es populaire ba tax nga ñëw xool ki gën a populaire te nga àndoon ak moom démb ngeen bokk discours nga ñëw da koy diir mbagg parce que jàpp nga ne Macky Sall ubbil na ko dossier boo xam day juraat yeneen dossier parce que dossier Adji Sarr yeneen dossier nga jàpp ne c'est mort pour Ousmane Sonko léegi yow da ngay ñëw remplacer ko jël place am quoi yow da nga foogoon noonu lay yombee maanaam ñu ànd ak Ousmane Sonko dañuy bàyyi Ousmane Sonko ñëw ci yow gis nga yàlla mooy jël ku ko neex mu def ci nit kooku lu ko neex li gën a yomb mooy nga nangu ko maanaam li olof di wax ne ku nangu lu dogal do sonu sa xol di jeex waye ku bañ li yalla di dogal di nga sonu di nga jaaxle lol mo len dal sonal len waye yow parrainage yi ngay joy su fekkone ne yow tiou populaire nit ñi dañ laa bëgg mais Ousmane Sonko ak kenen mënu la yaqal yow ñu la war parrainer ñu la wara parrainer Ousmane Sonko am député yu ko mëna parrainer do pare dem ci terrain bi di out parrainage citoyen su fekkene yow tiou populaire tu es aimé nit ñi bëgg nañ la mais yow Ousmane Sonko mën lo yàqal dara parce que nit ki moom su fekkee daf ne Pape Djibril Fall le bëgg a parrainer mais ko mën mënta fexé ba du parrainer Pape Djibril Fall wa légui ñooñu buñu maté 2 millions ñooñu dañuy tok téye sen carte xaar Pape Djibril Fall ba Pape Djibril Fall ñëw ñu parrainer ko donc kon yow wané nga né amo capacité pour la réew parce que mono am parrainage ba yaangi ngi plaindre di jooy ne nañ la bàyyee parrainage citoyen bi kon bu eboo seen candidat à la candidature bii nii ngeen génnaat ci dello ci gannaaw parce que ku mënta am parrainage wax dëgg yàlla xam nga ne doo nekk candidat kon keneen ki mooy Abdourahmane Diouf Abdourahmane Diouf moom àndoon na feeg waa Aar Sénégal les haineux mooy <laughs> les opposants de l'opposant moy ñinga nga ñom ne dañoo ñëw rek mais Ousmane Sonko la ñuy opposé wu mooy Thierno Alassane Sall ak juge dem ak Cherno euh, Bocoum ak député Omar Sy ñoom ñoo àndoon quoi mais ñi ci gëna a nak moy Cherno Alsan Sall ak Cherno Bocoum ci bañ Ousmane Sonko juge dem tamit mom lam doon xex ba tax mu ne démissionné na d'une magistrature qui a démissionné bi mu ñëwé àggalewul xeex bi quoi dafa dafa def acte bu rëy acte bu symbolique mais après dafa toog toog rek deful dara deful benn action voilà mais gars yi ñu ci ëpp nag seen problème mooy dañoo ragal Macky Sall quoi Macky moom dafa soxor moom day dóore di tëje di yàqaate moom Ousmane Sonko daal moo ko fi affronté di xeex ak moom ba dem kaso Abdourahmane Diouf toog na fii sànni fi Ousmane Sonko xeer ci élection législative yi naan Ousmane Sonko ak Macky Sall dañoo bëgg combine bëree dañoo bëgg baara yëgoo ah mooy bi liste yi amee problème quoi liste nationale yi bu Benno Bokk Yaakaar bi ak bu euh, Yewwi Askan Wi nekk ñoom Ousmane Sonko ba nekkoon seen problème xalaat TV sax mu ngi koy wax naan bu ñu jëlee euh, waa Benno Bokk Yaakaar seen euh, titulaire yi valider leen. invalidé titulaire yi euh, yeew yi ñoom dañoo mujj noppi parce que xam nañ ne Ousmane Sonko demul te Ousmane Sonko moo nekkoon seen problème donc yéen li leen sonal mooy ñàkk nangu li yàlla may nit ki kenn waxu leen bu leen am seen ambition kenn waxu leen ngeen topp ci gannaaw Ousmane Sonko mais da ngeen a waroon a def benn bloc ànd ak le président Ousmane Sonko. su fekkee da ngeen ne yéen anti système ngeen pour xeex Macky Sall mais yéen da ngeen yàkkamti woon Macky Sall xeexal leen Ousmane sonk éliminer leen ko comme Macky sàll askan wi dañ ko désavoué bëggatuñ ko yéen ngeen ñëw jël place Ousmane Sonko yéen loolu ngeen foogoon te loolu mënta nekk Ousmane sonk dugg na ci xolu sénégalais yi ba pare te du ci génn ba mukk mieux vaut ngeen nangu loolu rek moom mooy jeexal affaire bi.